dal leen ak jàmm yi yéene kaay yi nga xam ne nag moom lañu xëyandoo réewum Sénégal nag yi mbaa du jeexal ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci réew mi yéene kaay bi di La Tribune yi ma dul ñi nga xam ne nag ñoo nekk fa danañu jeex ndax l'accident metti yoo xam ne mooy am ci réewum Sénégal La Tribune di ñu xamale kay VDN 3 bii kay la muy faat ci doomu aadama ëpp lool ndax dafa fekkee la fay ñàkk seen bakkan ci ay doomu aadama bëri na lool ci lu yàggul dara am na lu toll fukki nit ak ñaar yoo xam ne nag jot nañoo daal am nañu ay blessé yu métti yoo xam ne jaaxal na leen waaye tamit am na ñoo xam ne daal ña nga nekk dans le coma maanaam daal mbir la moo xam ne daal jaaxal ji la muy sàkku ci Azirou daal mooy ñu daal di xoolaat lépp loo xam ne daal ndax ndaxte l'accident yi ni muy faat ci ay doomu aadama ëpp na lool tey nag loolee nañu xool baax nan la war a moytoo lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu ne mel keneen koo xam ne daal lam doon mooy mujj te ki ko jox laa wax nañ jox suñuy quatre cent mille yéene bi di ñu xamale gàcce gu mel noonu kay Alioune kay xam naa ne gëñ na koo dund ndaxte kay dañ ko yuuxoo dafa rus ba ne tott di muñ waaw keneen koo xam ne itam mi ngi ci jafe-jafe réew mi quotidien duñu xamal ne ki nga xam ne nag moo di Oustaz Taïb Sawde yéene kaay bi di xamale kay Mame Matar Gueye kay gannaaw ba mu seetee fi nga xam ne moo di oustaz Taïb Socé fi nga xam ne moom Taïb kay ma nga xam ne na ko ma nga wa xaw naa ca rëbës jamono ji kay ma nga sax ca sambura yéenekaay bi di xamale kay kooku mooy Adama Gaye di taskatu xibaar bi nga xam ne daal dafa amoon na jafe-jafe day nag dañoo jàppoon ne dafa tooñoon njiitu yi nga xam ne daal yéenekaay bi dañu ko doon amal maître Assane bi nga xam ne source a yëkkati woon nañ ne daal Sénégal ak ay jafe-jafe dinañ ko jànkonteel ci lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu ne jafe-jafe courant maanaam daal xuyu xuyu xamat xamat bu Les Échos di ñu xamal ne kay mooy Marème Ndiaye gannaaw kay ñaari doom yi nga xam ne daal amoon nañ ko nag ñaari doom yoo xam ne daal démonu ji dañoo taqaloo maanaam ñaari doom yooyu yéen i kaay bi dañu xamal ne ñi nga ñoo yëngu ci lépp loo xam ne nag jëm na ci wàllu wér-gu-yaram kàddu yi nga xam ne daal yëkkati nañ ko di ko ja xamle moo di ñaari doom yooyu bu ñu leen tàqalewul daal fii danañu am ay jafe-jafe laa wax danañu gaañu laa wax danañu am ay jafe-jafe yéen i kaay bi duñu xamal ne tey nag li leen jaaxal dëgg-dëgg mooy bu ñu leen tàqale dina am koo xam ne dina ci ñàkk bakkanam